يا رمضان محلى ايامك بارك هالمولى وادامك الجنه تعطر انسامك ومحلى صيامك محلى قيامك يا رمضان محلى ايامك بارك هالمولى وادامك الجنه تعطر انسامك ومحلى صيامك محلى قيامك خاطر أنسامك ومحلى صيامك محلى قيامك يا رمضان محلى أيامك باركها المولى وأدامك بالجنة moo xam moo xam ne moo man man koor gi damaa tali daamu. moo xam. day yàq ndëm ñëpp. waaw macha allah waaye koor xoolal ma ba ne. waaw waaw xool bi xam naa xamoo ko. su ko ñu la dëkk. yaa ngi dégg. kii baayam ay teraanga la xam demoon naa fa sa bëgg fa dara si moom parce que démb fii dama romb ma toog ak paa suñuy waxtaan xaw naa yàq suñu koor gi dama fee tey dëgg la de yaa ngi dégg man nag comme dama di géwél te baayam nee moom comme ñun ay géwél lañ ñun dañuy wër di fecc ci fure te ñun moom aar lañu am dara mënuñu koo xañ ma xool kilifa ko tooy ne ol ñaanga nekk si biir kañ bi may sab géwél di wax say baax si dëkk bi xale bi yéen naa pour nga ko ci ak xam na suñu mbomb yi gone si mun dara ah yéen a man man ki fi jaaroon. kooku li ma tàng. bàyyi pharmacie. pharmacie baaxul guddi baaxul bëccëg. pharmacie farantu naa ba yàqu. pharmacie oh pharmacie man pharmacie mbaa amul étoffe si sax man. non baaxul. baaxul xam bonan gi sa xaalis la bëggoon. te mu yaakaar ne li mu ma def noonu pour moom dina ko jik du ko jik pharmacie xamul woon. ñaanga yàlla mbir bi daw kee mën a mbaraan. kii ni ma ko jox si ay junni yëpp mm. wallaahi du ko jig dégg naa sax dañ koo tëj police moom fam na si dina ko tëj te jigéen dañ kóortu ba yàqu dina ko tëj daa am benn tubaab mu doon mbaraam léegi kii nan la noo mën a def boobu boo waxaa moom loolu problème bàyyi ko sama loolu ma sama giwél man naa kaaw bàyyi ma baatere <laughs> yo yuuxu ma yuuxu ma yuuxu ma yuuxu ma rek mbay mbayaan juufee ay waay ol sama ma demoon buur. yow yow buur nga. doomi buur dank lay doon. yaay buur. ndeysaan cey óol. yow kañ bi ko fi gën a gën a fi jërëjëf jërëjëf. ñëwal nii. nga di doomi buur. loolu ñaa ngi xale gaa ngi nii. maaleykum salaam. kii garmi la di buur. macha allah. mooy faj teraanga koñ yi. waaw man mii di wax yow sama kër sama teraanga óoloo ko gérer. óoloo ko nag yàgg naa la wax ay waxam te yàlla daf ñu gisee ak moom keroog nag Pa Oussou xale bi xaw na yàq fee kooram kay ñu toogal ci siège bi wàcc na fi raam na fa lu ne def na ko maanaam a bëgg jël óol mi teg ko sa loxo xam ne moom bu yaa ci mën dara teg ko si ak si kat. Euh, kii la mu a wax si man rek moo am. kii dañu yàgg. dëgg la bi nu doonee guni noo jàngandoo alxuraan. noo duggandoo euh, école. Mhm. noo xarafandoo noo jongandoo. du mhm. yoon sax ma di ko wax. waaye comme du teggin sax dañu yàgg. dëgg la il faut ma wax la. may géelu juddoom nag. merci. lu ma yónni li ma demal ko ci. yéen a noonu dëkkee. bëgg naa sa rëdd tubéy ni nga ko rëddee nga rëddee nii óol bàyyam doonoon ma xëy ta bàyyi ña na ànd fa nekk kii àndoon nii kese danoo ànd si wóllëre fu ne nu ànd si fas fas nu ànd si la yàgg. Mhm. ma gis la torop moo yaraw ngi daw cum vivre am na mu sentir. dëgg ma ne ko abu mu ne ma naa ma ne ko kii la ñëw nii kan la comme que man dama la kilifa mu ne ma oon may ma ba fekkee kii rek laa bëgg bàyyin ma waxal la je t'aime je t'adore eh, aywa bul jooy bul jooy. bul jooy bul garmi la boo jooyee ma jooy. lañ ca piita daaj. Eh, bul jooy boo jooyee ma jooy parce que unité bi sama gor la ah bul ah bul def loolu eh, xol bi seetati fi mu xol ko laalee mu ngi mel ne wanagu mboot. buy la def. ah bul jooy wóol bul def lii jànk nag day ñëw sa kër il faut nga invité ñu ndog wala ñu invité la ndog. léegi def naa ko ah fa ñàppaa xoto fa xoto ñàpp foo jëm ñu la nga la ko ñàpp. <laughs> fa jëm foofaa yaa la ñëw samedi wala nun noonu ñëw. ñëw man maa leen invité. yaa ngi invité ndog ah, ah. bàyyi nu invité la invité ko. noonu la gën a réew ëppalee koppa. ñëw bàyyi nu invité la. <laughs> waaw ñëwal. bàyyi nu invité ñëwal kër kenn du ko di. eggal li si des rendez-vous kër ga ñëwal ñoo lay invité. ah kon baax na. je suis accepte. ah ñu tam sa accepte. je cum. mën naa rombal. je t'aime. ay je t'adore. ay Patrice Beur demal doomi buur انتظر انسامك ومحلى صيامك محلى قيامك يا رمضان محلى ايامك بارك koy defal ndànk sa taal bi ndax naa métti man kii ne moom dina ñëw moom est-ce que dina ñëw ba heure bii Diso euh, kaay kaay jàmm. naa de. togg rek laa tayam. tey soxla naa. soxla naa kay. maa bëgg togg togg ñu ndekki ba suur bu ñu paree reer. lii moo tax ñu yaay jafay baax. baaxul ay saa suur. dépassé ñaari junni la mën a jox. tegal na si deux mille. waaw loo mën naa si di far genn ginaar sanu lekk si. ginaar laa ndugg waaw ak frites surgelé affaire yooyu. frites kër surgelé. aw sa bàyyi si affaire yi la dégg te wax na frites surgelé bi papa moom nag nii xam nga seer la. fu ñu sévéré bi loo koy am. amul dara fu ñu sévéré bi laa gën. déedéet mooy pomiteer bu ñu congelé ñu jaay fee Auchan. ah Auchan. doo warloo. man lii moo tax ñu ko sama yaay daf ma bett sax man kay lii moo tax ma réew papa dëkk sama yaay nii la mel. yaa ci gis. takk ñaareel papa nag yoon. mais aw daa mën a togg chaque jour école baa ngi ba ibbi wala jàng ji man na la maa def fu ma jëm. la ma fi man daa mën a lekk restaurant. daa koy baax lekkee lekkaale borom restaurant. waaw ah, yow da ngaa ëpp nag ndoy lu woo de. non man dama tàmm la lekkandu si ay restaurant. salaamaaleykum. ah waay waay Oudou. waay nomb naa la waaye aw demal eggal ndogu di. yow sax yeggal eh, ci biir yow. sàmm li ma la si fii yëpp. bàyyi la jàmm ki daa contre toog naan eggal ci sa doom ji dafa réew nga ko yaru. waaye yéen ñaar ay xarit leen. dafa réew ki sa la a def maa ngi laa xaar rek. dama sonn koor gi. tey bi. ma teg carte yi rek toog. kuy julli. jël mu ubbee xanaa maa ngi mel ne kuy jaay Dakar. non bii day man kay dama la yërëm tey. mais noo def. maa ngi nii. wër naa la fii yëpp dem naa mbaar maa fu ne tey seet. aw xam naa du ma génne tey daa fàtte nga dëgg gone nga. waaw maanaam du ma foog teel a war a ñëw wala du tey. teel a kay. ah daa ñëw wala ñëwagul. ñëwagul ah ñëw. ah bu ñëwee ba dem te <laughs> ñëw boo waree si kër gi moom. kii daal tëjal ma gémma ñoom rek. non moom du dama war a jubóog moom sax fi ñu doon ay xarit. voilà noonu laa ko parce que ma neex rek neex na la. Mm-hmm. tout. nomm naa am rek macaroni. rey naa de. rey nga moos mais ndox jàmm la koy lekk jëlal yaa man awma problème de. génneel fii man awma problème. Ndézo bàyyil bëre bi waay. eh yow déglul yow day mel ne kuy xeex ak ay ah, cum bawol bawol maa de yaa ngi commencé tëgg lii moo ñuy boole si carte gi. ah déedéet moom laa non déet déet lii moo ñuy boole. ci carte da maa moom. maa ah, moom yaa rey. waaw maa rey ah, waa waa ca li nga doxal as nga dóor ma dóor séddale carte yi mais kii est-ce dina ñëw. daa war a ñëw loolu dina def. excel kaay bi kaay bi kaay bi. Ah, ñëwal ñëwal. doo nit cum. jàng di nga def. Tebas eh. <laughs> eh, a ngi place am mbete ku ne ci nawet waaw waaw. sincèrement ñaaw. Ndiisu. ah kaay nuyu sa tante. Ndiisu. lan la kër gaa ngi de ah noo def jànk nag mbaa sonn na si yoon bi ah ah Ndiisu sa tante a ngi nii. nuyu sa tante nuyu sa tante nuyul ça va bien nga koy nuyu mais bisu bi damaa wut ko. alors alam caa alam taaw moom gisee ne gis kii moo tax mu xamari réew. ban gis yaayam yëpp mooy si moo ne si moom. gis moom si bara. wan ah yow di sumi réew nga de doo xam sa bàyyi nga tax ndogul. fàtte naa njéemee la jur sandee la gën a xamante fop man dakkal ko wujj noo nag baa nga jàmm day naanu waay ajal ah ajal ñam jànk looy dogo lu ñëw baax na lu baax na moom lool neexi ree ol sa xol seddati je t'aime mon cœur je te love you merci demal bàyyi bu ko tontu xol baa bon. xale la yaayam dañu takkal wujj. xale la ana sama bos. man dama doon gudd man. te eh, man jikko siis yi néew ma ci de. bàyyi laa compter compter wu ma ah, demal. non bàyyi ko foofu mu mel ne su ko siin. <laughs> te ah. moom baal dama doon ci junne nga doon waaj li baax yëpp li nga doon waaj non sooy lekk nga lekk boo lekk nga wër noo def eh lii mooy lan eh tëyal de dégg nga wax bu bëri mënuma ko papa bàyyi man maa togg maa man maay koy séddale ah, <laughs> loolu de du problème maa togg maay séddale ah ubbil bismillah ñu doxal maa dangaa réew ba dof eh, eh, di nga xool beneen kër booy dugg bu fii réew ba yabaata eh! naa leen ñaareel du fi daaw sama yaay bi fi nekkul maa fi ne. yow war nga def liggéey. ah waa kër Oly nga tënk kon li ngeen daal di yës xam nga kër ga yow nga toog sa kër bu subaa. يا رمضان أحلى أيامك باركها المولى وأدامك الجنة عطر أنسامك ومحلى صيامك محلى قيامك يا رمضان أحلى أيامك